Aja Deme Sëñ Ndiaye man Birame Ndiaye Rees maa ngi lay dugal nag yéen sa dugg si war na nag yéen yaay jur mbay jaay te yàqule bële bu demee si nga tey sa pour ma jël samay dajale xarit yéen sa tey di dajale xarit di jur mbay jaay te yàqule ko dara yàqal waa kon nag Aliou Sène Ndiaye mi ngi lay déglu jërëjëf merci les journalistes, les journalistes, les journalistes, dañu leen di demander s'il vous plaît organisation bi ñi gérer organisation bi ñi gérer organisation bi dañu écarter journalistes yi mais dañu ñëw tranquillement ñu mën a démarrer programme bi parce que ñu mën a dugg te invité yi di toog ak liggéey ak donc dafa mën a démarrer programme bi su fekkee bu gaa yi toogee ba pare nday dina ànd ak def visite ci parking bi bu ko defee ngeen découvrir li nga xam ne moom yi nga xam ne tey moom la ak sunu parking bi ak presse presse dimbali ma rek mu waxal gaa yi fii couloir bi yëpp ñëpp toog waaye organisation bi moo tax ñu ñu ràññee sax ñu ñëw. monsieur le maire de Jastel Moustapha Diop déjà ñëw na dañoo ko di dañoo ko di presse ak sécurité bi képp koo xam ne ñu ngi taxaw ci. maa ngi lay bëggee bu baax Alaaji naka coonee nag. sant rek sant rek nga ñëw ci bés bi nga xamante ne suñu moo ko woo tam lay jaaj. ci inauguration parc bi tey yëg bi lan la. waaw c'est une fierté ah c'est une fierté pour le Sénégal ah c'est une fierté pour le Sénégal ah qu'on Afrique. Uh-huh. chaque année mi ngi koy wane tey bu demee ba def li ni mel dañ ko ci war a. gërëm dañu ci war a aussi euh, ñaanal donc di wax sénégalais yëpp nañ ci jàpp ñi nga xamante ni dañ daan taaba taaba di wuti yeneen oto ci yeneen dëkk mën nañu ñëw am na fi lépp lu bëgg ay Velar gis naa a fi gis naa fi Mercedes Benz 2019 gis fi lu tout cas euh, des voitures de luxe de yoo xamante ni euh, daaw ma ko fi gis man tey may permettre na a ma gis ko vraiment xam naa ni c'est avec des prix abordables yoo xam ne sénégalais bi ko ci bëgg rek dina mën a gis ñu aussi un boo xamante ne dafa footballé liggéey ñëwaat ci dëkkam pour investir jaay wala jàppale ndaw bi tamit ci lan la. c'est une voie parce que moom du ci lii rek la nekk. day social à tout moment gis ngeen ko. Uh-huh. mi ngi ci bi mi ngi ci lépp donc bu bëggee ay oto bëgg ci investir defe naa nit ñi dañ ko ci euh, war a jàppale te moom dafa nekk ko nit koo ne dafa yàgg bëgg oto. Uh-huh. donc lii peut euh, loo xamante ni la lu wareef la pour moom pour sénégalais yi xam ni wax dëgg yàlla mbay mi kat. liggéeykat la di di ci ni beneen joueur bu ko mën a def itam na ko def te xam ni aussi c'est c'est c'est une bonne chose. mais coow li fan yii topp na la de bette bette luy problème bi. ah luy problème na la de bette bette. bëggeel fan yii dañ kaa téye ci kaw. non nice nice non di sant la rek. mais nice ah ñu koy gérer def. ak succès bi. ni ko Sénégalais yi jëlee bëgg ko yow tamit ñu wax waxu parti nga bëgg. non non nañu waxtaan ci loolu mënut a ñàkk tamit. ah série bi nice a ngi kay loolu la rek. mi ngi nice de succès bi ni ko sénégalais jëlee naka ngeen ko dundee. daan gis euh, benn personne ci wàllum animation tey nga dugg ci série bi mu mel ni yàgg nga ci di si joxe loo xamante ne sénégalais yëpp euh, si topp daal. bett moo succès wu bi parce que c'est avec des grands des maestros comme El Hadji Sané Cheikh ah, ñoom euh, Cheikhouna nekk nañu yoo xamante ni wax dëgg yàlla yàgg nañu joué suñu mbir donc ñooñu rek ñoo ñoo mbir mi donc boo liggéey ak ñoom. yow doo mun lu dul nekk seen suufu tànk quoi donc peut-être loolu aussi moom moo ñu permettre tey aujourd'hui sénégalais yi reconnaître reconnaître ñu par exemple ci li nga xam ne moom la ñu jàngale bi affaire nag kas bi lan nga ci partage ak sénégalais yi. waaw li ci des li li ci des moo ëpp bu baax a baax a baax li ñu jot a gis donc xam naa ni dañ ko fay yemale rek ba pare parce que foofu ma dem rejoindre gars yi ci bâche

baay yaa leen mën. dox dox dox dox yaa leen mën yaay seen baay. doo doom bi di yow. yaay seen baay.